nam naa la gëj naa la dégg ça va naka xale yi ana ñoom am njaay ñëpp a ngi ci jàmm yónnee naa la benn foto jeeg bu rafet bu tagalu ba rafet takk ay lamam mañankasee ngoo ko <laughs> bilaay wan xamul ki nga xamul yàlla am na ñeme na suñ borom ba jaaxal ma xam nga ne kii ku taseeg moom bu ne nee góor la doo ko gëm de mu tagalu nii ba rafet